aousubillahi min asheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu min jadid mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaara bu baax a baax di leen ndokkeel di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak ñun ci seen chaîne bi di alquranul karim zikr wa shifa tey ñu dellusiwaat ak yéen ci seen beneen buntu firi gént di wax ne ñu ngi tàmbali beneen liggéey maanaam beneen saison bu bees par épisode par thème ko am laaj mën nga seet li nga gént ci page bi boo géntee rek mën nga bind mën naa am dana la ko indil soo ko gisul mën nga envoyé message vocal whatsapp comme ni ñu koy waxee mais boobaa da ngay envoyé 500 Wave wala Orange mën a ci suñu numéro boo message bi nga defee transfert bi nga envoyé ñu ko def audio bi ci suuf noonu la ñuy doxalee liggéey bi léegi euh, di ñaan ngeen topp ñu ci Instagram mën ngeen ñu topp ci Instagram Sidy Bouye Top mën ngeen ñu topp ci Facebook Firi gént officiel mën ngeen ñu fa topp. samedi bu nekk da ngeen am direct fii ci youtube bi facebook instagram samedi ju guddi à partir de vingt et une heures allah tey ñu ñëw ak yéen ci beneen buntu firi gént mooy gént gis weer am na video bu ci ñëwoon waaye pour gën a yaatal ak laaj yi gën ñu gën ko laaj yi ci ñëw tax ñu gën a yaatal vidéo bi ngeen topp ñu bu baax a baax a baax ndax weer lu am solo la ci gént dana ñëw ci jant daan ñëw ci vidéo li ngay njëkk jàpp ci weer géntu weer wu lëndëm baaxul loolu moom musiba la weer wu jékki-jékki nga jékki gis ko weer wi lëndëm turus comme ni ko ni weer baaxoo mooy leer mu turus mu lëndëm turus baaxul kooku jafe-jafe la bu fekkee danga gis weer au mu nekk benn weer mu nekk ay weer yu bëree bëree bëree bëri tadullu alal xaj dafay firi aj màkk ci yow wala umra maanaam at moomee wala ma sa topp yàlla man na laa dimbale yoonu màkk taxaw ndax dalil waadix moom ñu ngi ko jëlee ci alquran yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitun linnaasi wal xaj waa kay kon loolu lay firi ñaareel bi mooy gént weer weer wi jege suuf lool weer wi wàcc wàcc ba jege suuf baaxul day firi génnuk àdduna boroom xam-xam maanaam faatuk borom xam-xam ci borom xam-xam yi nit ku tedd ku bari xam-xam wala ku nit ñi bàyyi xel ci wàllu diine dana firi faatu kookee maanaam li nga jàpp dana firi kenn ci dëkk ba wala ci réew ma ci boroom xam-xam ya dana génn àdduna loolu la ko mu fassirin yi firi wallahu taala ala wa alam danga gént li ñu tuddee ñi jàpp weer wi Euh, liñ ko tuddee ku ne yàgg naa dégg jàpp nañu weer wi jàpp nañu weer wi comme de même bu fekkee ci wàllu science am na ay wax yu ci am waaye teewul dégg nga ñi jàpp weer wi nga gént baaxul lan lay firi benn feebar benn gàtt fan baaxul ci gént baaxul feebar ci yow wala ku la jege wala gàtt fan ci yow wala ku la jege baaxul juróomeel bi li ngay jàpp ci weer xale bu jigéen boo xam ne amagul jëkkër nga gént weer yu ñëw ba tolloog sa ndigg wala ba tolloog sa biir daan lay firi day firi jëkkër jëkkër ci lan ci kan da ci góor goo xam ne nekk borom borom mbir mu rëy borom tedd nga borom jikko borom di sang ci nit ku nit ku màgg daal yàlla mun na laa may jëkkër jëkkër yoo xam ne dana nekk borom barke di nit ku màgg incha allah da nga weer wi di wër jant bi jant baa ngi taxaw gis weer wi di tourner di ko wër lan lay firi day firi tuub gu nangu ci yow wala jéggalu bàkkaar ci gàttal gént gu baax la gént weeru mag a mag a mag weer wu mag lan lay firi day firi xam-xam ci yow aji gént gi gént weer boo xam ne weer bi taar bi dafa jéggi dayoo dafa ëpp comme ni weer rafet na waaye nga gis weer wu rafet ba jéggi dayoo baax na day sa personnalité day day firi ne yow nit nga koo xam ne nit ku tedd nga waaye nit ku sell nga loolu benn ñaari bi nit kuy taxawu nit ñi ci seen wàllu diine la wala ngay dimbale nit nit ñu néew doole baax na lool weer wu manqué weer woo xam ne yëg na daal weer am na lu ci fell matul ni weer baaxawul di mel baaxul nuqsaan fi diin lan lay firi mooy day firi yow aji gént gi nit ku néewal ci sa diine nga say julli matul wala say woor matul wala say li la war sa diggante sa borom daal doo koy matal kooku moom baaxul ci yow dafa nekk gént goo xam ne daf lay soññ ci nga góorgóorlu ci sa jaam yàlla nga gént jant bi ak weer wi ñu ñu duggante ñu jaxasoo mais dama laa xool ni jàpp ko ñu duggante nii taxalew ba yéew lan lay firi day firi sëy ci délai bu gën a gàtt bu la fekkee amoo soxna yàlla mën na laa may soxna ci lu gaaw bu dee da nga am jëkkër yàlla mën na laa amoo jëkkër yàlla mën na laa may jëkkër bu dee ñi nga xam ne dañoo denc ba su kii danay firi yiw ak xeewal ak wërsëg maanaam bu dee ñu am soxna day firi xeewal ak wërsëg da gént weer wi di wër suuf si rek di tourner di wër suuf si rek lan lay firi day firi yow aji géntik nit nga koo xam ne ku sonn ci mbiru ñi nga ñi la jege na sa njaboot da nga yittewoo seen biir di ci sonn wala voilà ku nit koy koy yittewoo mbiru jaam daal nga nit ku baax nga yow ci sa jëflanteeg doomu aadama yi baax na gént weer wi xar weer wi taqali koo ñaar li di inchiqaqul lay firi day firi euh, xaritoo yu yu taqali ko wala njaboot gu tas baaxul bu dee ay xarit lañ dana fi danga nga taqalikook say xarit ay réeroo am wa illaa sa famille dana tasaaroo baaxul beneen bi danga nga gént weer fekk bi ngay gént gis weer bi yaa ngi feebar te weer bi manqué wul wàccul ba ci ba jege suuf si comme yi ma wax nii gént nga gis ko mu nekk weer nii day fiir wér ci aji feebar gént gis weer ci jigéen wala Euh, voilà ci ci góor laa bëgg a wax baax na lool day firi ëmb ci soxnaam te doom bu góor lay am weer wu rafet euh, normal yeneen yi ma wax weer baaxul ci bokku ci jigéen joo xam dafa nekk euh, jigéen ji nekk ci néegu say gént gis weer bi dana firi ci moom baax na lool bu amul sikk comme yi ma wax ne baaxul koo xam ne da gént gis sa jëmm ci biir weer wi nga teen gis yow yaa ngi feeñ ci biir weer wi nga nekk baaxul ci gént yi gën a ragal la bokk day firi gàttu fan maanaam gis nga sa bopp ci biir weer bi baaxul ci lii gën a gën waar ci gént la bokk baaxul gént wi gis weer woo xam ne dafa dafa lëndëm waxoon naa ca kaw ne baaxul waaye bu kii dafa nekk waajur joo xam ne jor nga njaboot danañ fi léeg-léeg yow nit ngoo xam ne ku ku ñàkk a sàmmoonteeg sa àqu njaboot nga walla ku lëndëm nga ci say njaboot bu dee da ngaa nekk ñoo xam da nga nekk mudir maanaam da nga nekk directeur ci entreprise nga am ay nit ñooy liggéeyloo yilif leen day wér ne yow tooñ da ngay tooñ ñi ngay liggéeyal walla nga nekk nit ko xam seen seen àq sàmmonte aw ak moom kazalika bu dee doom moo ko kii danay firi tooñ waajuram bu dee emploi emploi moo ko firi danay firi tooñ kilifaam maanaam patron am ci biir liggéey ba kon loolu lay firi da nga gént jant beeg weer bi ñu di la sujootal nga gént baax na lool day firi ngërëmu ñaari waajur ci yow aji gént gi baax na lool ci gént bu dee da ngaa gént gis weer wi génn rek duggaat daa génn nga gis ko rek mu daw mu duggaat taxawul lan lay firi day firi mbir mooy tàmbali moo xam ne doo ko yeggali bu dee da ngaa tàmbali chantier chantier mën a yegg bu dee da nga projet projet mën naa bañ a réussir extra extra bu dee da ngaa gént gis weer wi nag mu ñëw ci yow weer wi ñëw ci yow rawat na mu ñëw ci sa dënn képp ku mën a doon góor la jigéen day firi yàlla mën na laa may doom joo xam ne dana nekk benn mu nekk xam borom xam-xam bu mag wala mu nekk attekat wala mu nekk président gént gu baax a baax la ci gént danga gént dem ba ci weer wi laal ci sa loxo yaa ngi laal sa loxo ci weer lan lay firi lil mutazawijin mawlud zakar bu dee ñi am ñi nekk ci néegu say góor ak jigéen danay firi yàlla mën na leen may doom bu góor bu am njëriñ bu dee ko amagul soxna wala nga amagoo jëkkër danay firi jëkkër ci yow da nga gént nga téen di xool asamaan si nga gis daal leer weer wi leeral gi ëpp lool yaatu lool baax na lool day firi ngërëmu ñaari waajur encore gént bu baax koo xam ne da gént taxaw ci sa digg sa kër am na jardin wala nga gént nekk ci tool nga téen di xool weer wi nga gént gis weeru wi mu leer nañ ko zalik leeral tool bi wala jardin wala sa kër day firi wërsëg wu yaatu yaatu yaatu yaatu wala boog tukki dana koy firi gént weer wi daanu ci suuf wala mu daanu ci géej weer wi nga dénk wala ci désert nga gént gis nga weer wi wadd weer wi wadd lan lay firi day firi crise ci yow crise bu rëy mu fitna musiba baaxul euh, danga gént ñaari weer nga gént weer yu benn nga xam nga gént mu nekk ñaari wax naa weer yu bari laa waxoon bii ñaar kese la yii lay firi benn nga nekk nit koo xam ne ku am mbëggeel ku dëgër ci say frère la walla ci say xarit wa xii la yenn yi ne sëy lay firi ci koo xam ne amagul jëkkër wala koo xam ne amagul soxna bu dee ñii danay firi koo xam ne mbëggeel gu sincère na ci say xarit wala ci say frère wala ci sa soxna wala nga am koo seqal business commerce ngeen bokk associé di liggéey ci dara ñi wane ne liggéey boobu réussite dana ci am te seen diggante déggoo am na ci kon baax na daan ala kulli xaal gént jàpp weer wi damaa waxoon laal weer wi da nga jàpp ko nii lan lay fi day firi mébét boo xam ne la sotti looy bëgg bëgg nga am këyit bëgg ngaa tukki bëgg ngaa réussite bëgg nga diplôme sàngam bëgg ngaa réussite concours sàngam loolu da ko réussite baax na lool ci gént wa illa dana firi loolu benn beneen bi dana firi euh, ku tukki woon ba kenn réer mu nit ñi fàtte ko wala yu mel dana ñibbisi wala boo amee ku dëkk ku nekk kaso dana génn incha allah gént jàpp weer bi baax na lool nga gént weer nga gis ne weer bi dafa am couleur bu kër couleur bu couleur bu verte comme ni nga miinee ñax lan lay fi day fi di jikko yu tedd yu nekk ci yow baax na lool lool nga gént gis weer yi mu amee couleur boo xam ne dafa am couleur or xaalis lay firi bu bari ci yow alal baax na bu dee couleur bu zone ba ëpp ba jéggi dayoo baaxul day firi feebar ni nga baaxoo weer couleur bu zone ba jéggi dayoo baaxul day firi feebar bu dee dafa rouge ba jéggi dayoo ba dépassé ni baaxoo day firi réeroo ci famille xilaafaat usar yi bu dee ku nekk ci sëy voilà réeroo ci biir famille bi daal guddi nga yaa ngeen gis guddi gi nga teen xool asamaan si amul biddéew amul weer ci guddi la asamaan si amul biddéew amul weer amul dara baaxul day firi njàqaree ki baaxul ci gént yàlla na ko yàlla xajal ñëpp ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé wa ma zalika alallahi bi aziz wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh